salaatu allazi fi kulli saarin wa fi safar amaani ala ma'i ma'al afza wa sabar bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi zawil ridwani mu tamkin bokki jullit yi tedd yi fi teew yëpp bokki taalibe yu murid yëpp ñu ngi nuyu mboolem ñu fi teew ak ñu fi teew ñëpp di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak di leen jottali kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci ndigalul ak Cheikh Sidi Mokhtar mi fi toogal Serigne Touba te ñaan mu yàgg fi doon te ànd ak wér ba mboolem naaj yi xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey ak Serigne Touba suñu doom may ko kàttan ko wér ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ñu defar koy ni ñu ko defee woon ndëgale daaw ndax ci waxtu wi daaw ci lañ dajewoon fii bi ñuy tàmbali màggal gi di fàttaliku bis bi nga xam ne ci defi fi Sëriñ Tuubaa bàyyi ko woon dem liggéey li borom mu di liggéey bu tedd boo xam ne lépp xewul la waaye lépp itam am na Tuuba mooy bis yi nga xam ne ci lañ tàmbali fii ci kuréel gi nga xam ne mooy saytu màggal gi tàmbali tey seen liggéey ñoom sax ak ñëpp daanaka dañ koy liggéey di ko daje ci njiital Sëriñ Ousmane bi nga xam ne moom lañ teg seen kanam waaye comme waxtu wu nekk dañu nekk ci ndigalu sëriñ bi ci yeneen yitte moo tax it dañ ko koy bàyyee moom itam muy waxtaan ak ñu ko seqal ndax kuréel gi dinaa ci ñëwaat sax ci ñu ko taxawalee ndax mboolem ko ko Sëriñ Tuubaa képp dañoo ne ci biir comme tey jii lañ tàmbali bis war a def ndaje ni nga xam ne moom lañu war a jëkke def ci réseau bi ginnaaw bu ñu jiitalee CRD ak CDD bi ñu doon def ci biir département suba ñu war a def seetlu bi ci Diourbel kon tey jii itam kuréel gi tànn daal saytu di waxtaan liñ war a gën a soxla ci màggal gi kon ñu ñaan ci barke Serigne Touba mi nga xam ne lépp luñ ci def rek sàkk wuñ ci dara lu yeesu ngërëmam yàlla na jege tawféex ak ndimbal ak ngërëmu Serigne Touba màggal gi nag day xew-xew bu rëy boo xam ne boo doon xool ci àdduna bokk na ci ndaje yi ëpp tey ci lislaam muy loo xam ne itam bari na koy fàttaliku bu baax ndax dafa am ay fànn yu bari yu bokkut te li ci ëpp nag mooy wàllu ruux ndax wàllu économie sax dem na ba tàbbi ci biir waaye lépp nag ñaanu ñaan suñu borom mooy mel noonu bu xasee ba accès lépp di ñëwaat. waaye wàllu bu wax gi nga xam ne moom mooy li ko wuri su koy fàtte mukk fàttali ko waat li ko war lool ak fàttali ko itam pësseet bañ ca war ndax màggal gi li nga xam ne moom lañ ci war a jànge ndax xew-xew bu mas am ci lislaam rek muy Tabaski ak lu yi màggal ci ne suñu borom dafa am luñ ci dugg ak luñ ci war di fàttali ko moo tax muy wax ne waxtu ne day fàttali nit ñi mu digal ko Rasulullah ak waxitam bu fekkee boo na fàttali moom njëriñ fàttali day daal di war muy ne itam Serigne Touba dañ ay natt yu diis yoo xam ne da ko dëkku moo ko jural lii mu am tey kam ni'matin fii tey ni'ma xéewal li ci ëpp balaa balaa agsi rek mettit wala ay natt wala mbugal moo koy jiitu mu doon ak sëriñ màggal gi itam ci biir loolu la tàmbee ndax sëriñ Touba wax na ci fenn ci ay mbindam la laata suñu borom di ko jox li mu ko jox nee na ci ëzël nga xam ne boobu sax nekkaguñ ci aalam bi ñu nekk ci xaal aalamul dafa dajale mboolem nit yàlla lu rëy lu kenn xamul nu mu teg ko ci lu mel ne am ràññaam gu rëy muy dem ak muy dem ak ay dikk mu dajale mboolem gaa yu baax yi gaaral leen ko ngir bëgg ñëpp dem wuti dem sàkku ji ko waaye kenn ñu wuti ju dem sàkku ji ko waaye sëriñ bi nee na nag ci ak dogoom ak gëmum suñu borom ak xam ne suñu borom lépp lu mu santaane lu ma lekk moo tax mu xamal ko ne ko bu fekkente ne may na ko bu dee moom seen na koo loolu mooy yoonu géej gi mu teg mu teg ko ci ay sàrt ak yéegi sëñ bi wax ba mu ba ba ba te sabe jeex ndax day gudd nettali woon naa ko ci màgg gi weesu loolu mooy tufu géej gi moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne liggéey bi liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy juróom-ñetti aj yu màgg ñu samaaniya xijja illaa qalilan nee na bokk na ci li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di puukar yu boole looloo waaye tam bi cant yi jeexee mu wax ne bëgg na bu demee bu dellu lépp lu ko ci suñu borom bayoon ca lam fa dégg ci ay tiis ak i métti métti la ko ci yàlla bi fay mu ànd ba muy dugg nag di ko wuti yi ànd kenn. moom rek ànd ànd ak jëmmam kenn wettilu ko nii mu wuti dam wuti ba agsi ak bokkoo nii wax ne lii aw sidil la si uridu wan fan bi yal war a yaa moo li yam an mil fan waxaatit ne ijaalu juuxi ilaa xawmi saadatina wa takfina yowma jamhil xalqi mbirana kon màggal bi day lu baree bari loo xam ne Sëriñ Tuubaa bindoon na ko ba mu nekk ci réew ma yéene woon itam ne bu agsee dana ko màggal ànd ko ñëpp nawaytu shukrahu bi fardin wa sunan fii maskani Tuuba wa fii daarina katabtu yowma sabti inda algalwa baxda jihaadi wa firaaqi albalwa alhamdulillahi alladi qad raada li alcida wa saaqa li agrada fustu ladaa galwa wa inda bafani xustu la daa galwaa wa inda baafari bi ma bihi uniru kulla maxfari kon loolu mooy màggal gi tey mu ne na ko ci ñëpp sant la yàlla sant yàlla nag dafa bokk ci jaamu yàlla yi mag ci àdduna moo tax Sëriñ Tuubaa fokkoon ko loolu ndax balillaahi fa'bud wa kun mina shaakiriin suñ borom wax ne la in shakartum la azidannakum bu ma sante ma dolli leen wax ne alaysa llaahu bi a'lam bi shaakiriin ñàkk sant gi nag moom laaj suñu borom daane ñëpp xam ne ko wal iyaazu billaahi taala kon ne ñëpp xam ne mboolem lu ci Sëriñ Tuubaa daane wax ne na ko ci ñëpp santale yàlla li ko tàmbalee ci ganaar ba ci jigéen loolu lépp itam ay bernde la ngir sant ko yàlla ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ayul itaami ayul islaami xayru qaala an tutima taama wa taqrau salaama an an an dafa wax ne ayul islaami xayru lan moo gën gën a màgg ci lislaam mu ne an tutima taama ala man arafta wa man lam taarif wa taqrau salaam joxe nuyoo ak joxe ñam ci ki nga xam ak ki nga xam dama xaw a fàtte nasul xadis waaye loolu. kon mooy morox Sëriñ Tuubaa daale ko ci biir bisu màgg boobu waxee na ko ci ñëpp santale yàlla ci lu ci waay moom li tàmbalee ci ganaar ba ci igal kon loolu itam na ko ñëpp di fàttaliku xam ne lu ci ne rek ci lislaam la ko suñu doon def jàng alxuraan bu mu ci santaan itam Sëriñ Tuubaa dafa fonkoon alxuraan lépp lu mu mas di def moo tax njabootam gi ko fi wóotu ginnaaw bu màggal gi accès dañuy santaane ne ñëpp di jàngale al jàng alxuraan ci bis bi loo ci waaye moom bu weeru tàbbee ba agsi ci bis ba di ko def addee rasulullahi sallallahu alayhi li ci def ñu def ko addee mu toll boo dee li muy bari bari bari ak li jiital waxtu wane mooy day sant suñ doon tàgg ko ba noppi teg ci alxuraan door cee teg rasulullahi sallallahu alayhi kon alxuraan képp koo xam ne bokk nga ci Sëriñ Tuubaa wala nga di ko tuddoo war ngaa xam daraja ji alxuraan am ci lislaam ak ni ko Sëriñ Tuubaa fonke nga di ko ci jàppale ci fonk ndax diine lislaam du diine xel diine sami'na wa ata'na la inna diina mabniyun ala naqli la ala munasabati naqli tekkiwul ne li dëppook sama xel rek ngay xool mu jub yow nga wax ne lii mooy alxuraan mooy mooy lislaam waaye li nga xam ne suñ boroom tëral na ko loolu mooy li nga xam ne mooy moom la ab jullit di war a tànn te xam ne mooy la ko suñ boroom tànnal te mooy li gën ci moom alxayru fii maxtaaruhu muxtaaru laa fi lasi nufusukum taxtaaru kon lépp lislaam noonu la demee bis bi itam 1921 ci de Sëriñ Tuubaa njëkke toog ci njariñ xam xam ne ni ndax danaa def saa suy agsi nattu yi sëriñ bi da koy séntu xam ne mi ngi bëgg agsi ba ci at mu mujj nag suñu doon xamal ko ne sa sa sa sa say nattu jeex na sag pay ji des nattu yi daal demee rek nga xam ne saa su nattu yi agsee saa su heure bi jotee sëriñ bi doo koy fàggandu ko xam ne lañ ko tegoon ci tiis lu ko gën a métti lañ koy teg noonu la ko sëriñ bi doon séntu ndax ca géej gi ku ne xam ne ne sóoratul baqara lañ ko teg ci natt muy ñaar ak juróom-ñett fukk ci ay ba mu jeex at mu juma nag bi ci la ko suñu xamale ne say nattu jeex nag sa koy jëres fekk sëriñ Touba xëy suba teel woo nit ñi. sëñ Balla Fally Dieng ak sëñ Moulay xisa ba ñëpp dégg nañ ko day guddaatal wax ji la ca xew waaye bi sëriñ bi wooyee taalib yi ngir santaane wax ñu yëgle màggal mi ba tàmbul ko dafa dajale nit ñi ba bëgg waxtaan fekk am kenn ci mbokki taalib yi ba dafa dem ci biir njaarim ci àll bi seen génn lëg gu rafet mu jàpp ko indi ko sëriñ bi àddi Sëriñ wax ne xanaa lëggi de jaax nañu lool ñu ne ko am Mbàkke lu tax mu ne ndax dafa sori bokkam mu ne ñii nag làmbaloo ci biir ta biir Tuubaa bi ci taalif génn xasida wax ne allahuma yaa man ajabani anni wa nafaatani wa yusbaq ila mislihi wala yusbaqu ila mislihi wa salabta ilayya fi yowmi xatti haazal xatta alquraan wa lisaan alarabi wa manaafica dunya wal axirati fihima fa salli wa sallim wa baarik ala sayidina wa mawlaana muhammad wa ala alihi wa saxbihi yaa man jahla haasihi alqasidata ahaba ilayka min kulli mawzunin qablaha mooy al arnab al arnab mooy fii mooy fii lëkk ci baatu arab Sëriñ Tuubaa door ko ci biir. mbuutum xasida noonu la ko sëriñ bi doxale ba suñ borom dogal mu ñibbi si Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo ko njëkk a wuutu ci ab jataayam euh, daa ko santaane ni ko sëriñ bi daa def mooy kenn ku ci di ko màggal sa kër ba yàlla dogal mu bàyyi ko fi 1946 Cheikh Mouhamadou Fadil woote ko tuxal si ko fii ci Tuubaa ginnaaw bi itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko def ba suñ borom bàyyi dogal mu jóge bi Cheikh Abdou Khadre mel na at la ko def Serigne Saliou itam wéyal ba 2007 mu bàyyi ko fi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moom itam ñëw màggal ko ñett bàyyi ko fi Cheikh Sidi Moussa Diop ñu ngi ñaan mu gën fi yàgg loolu te ànd ak wér ba fii màggal ji àgg tey mooy su ko lu bare bare màggal gi itam muy loo xam ne dafa yaatu ndax li ma waxoon rek dafa am wàllu ruux am wàllu àdduna wàllu àdduna gi itam ci ñi nga xam ñoo jàng wàllu économie dafa bokk ci liy doxal koom réew mooy bisi feet yi ñuy def ngir nit ñi li ñuy wax al istihlaak wal intaaj man di ca mën a am li ni li ñii di liggéey ñii di ko mën a jariñoo Sëriñ Tuubaa nag defal ñi ay bis yoo xam ne li ñuy wax relancement économique di ci am ginnaaw bu wàllu diine ci ndax lépp lu faay indi rek mu jar ñéppay jaral léppay jaraloo kon Sëriñ Tuubaa lu ci ne rek di ca jiitu àdduna boo doon xool ci wàllu àdduna màggal Tuubaa ci li Sénégal màggal Touba képp mooy fête bi nga xam ne Sénégal du ci perte waaye da ci jëriñ te loolu ñi seen xam-xam màcc ci wàllu koom-koom firndeel lañ ko bu wóor a nga xam ne du ay lépp du ay gént du waxi parparloo waaye lu wér la loo xam ne màggal bi day boobu la ko suñu borom jox muy ñaan bu suñu Touba ñaan borom ba suñu borom may ko ko moo tax itam ñun ñi nga xam ne ñun la ko sëriñ bi dénk. ni ma ko fàttale woon daaw rek laa koy fàttale fàttalewaat nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax ci def ci góor góorlu ci bañ ca dugal àdduna ndax suñu borom kat lépp loo xam ne àdduna dugg na ci rek la ca ko soxlaate ndax lu ñu gis bi rek loolu suñ borom amutu ci aw yoon doomu aadama koy wax waaye yàlla moo noppi ci loolu te Sëriñ wax na ci téere yi ne warul wa rubbama ibadatun kathira qad afsadatha lahzatun haqiqa bari waa na lool nit ku jëf-jëf ju baax lool waaye bu gestoo ne jëf naa lu baax lépp daal di moo tax màggal gi képp koo xam ne sas nañ la ci gëri ci def da nga koy jàppe ak cant te def ko ak laxasaay te xam ne Serigne Touba moom lépp loo xam ne bëgg na ko rek ñaan na ko suñ boroom ba dara mënu koo te sotti kon képp koo xam ne defal naa tawféex ba nga doon ci rek war nga sant bu baax te xam ne boo ci jëfee mu sotti boo ci jëfatul mu sotti ndax loo xam ne waxtu wu nekk dama ko daa faral di wax loo xam ne dox na ay ati ati at te judduwoo te wóor na ne danga nga faatu lu yàggit muy dox loola képp koo xam ne wax naa ne doon nga ci dara yëpp da ngay rax sa bopp ndax loolu moom moo kenn di ci amul dara lu sotti ba noppi la. kon nañ ci góorgóorlu def ci positif te bañ cee geesu dara te xool ci ki ñuy jëfal te xam ne ñu ngi jàkkaarloo ñoom sëriñ am sori jaaxal daana wax ne sëriñ bi de képp ku jàpp ne dafay nekkatul kon boo amoo dara ca basiirtu te nekk nag ngay gis ci feex ak i ndimbal loo xam ne dara wóor na lii loxoom képp képp moo ne ci biir la ca des nag moom buñ ci am soxla ndax adduna moom dafa baaxoo noonu la ko suñu borom bindee Serigne Touba mas naa nekk ci njëriñ am ku muy waxal ci biir wax ji mu ne ko li am lu sëñ bi wax kooko dëggal ko xamal ko na ko ñëpp wuy si nañ Mbàkke Sëriñ Tuubaa na ko li nga wax amut ndax yàlla suñu borom lu muy rasulullah du ko may kenn mooy woote ak dëgg ñépp fekk si kon li am solo rek mooy looy def jiital ci yàlla suñu borom mbir bind xool ci jëm Sëriñ moo tax ngay jëf leneen la ci des nag résultat yi moo koy àtte waaye wax ji moom du du mën a ñàkk ndax képp ku ne ci kanam ay nit jiite mbooloo mu nuy sulaa ñàkk wax jërte jëm seen bos wala rek nga def la sëriñ bi waxoon ci euh, téereem bi muy tuddee nax ju xadaayil xaaj nga xam ci wàllu aadaab axlaaq la ci jàngale dafa wax ne wala xad amuru ala la imu ala la imi yasubbu nii wa a'ifu summa aqulu laa yaani nii nee na romb naa romb naa ca ka soxor mu di ma ŋàññi di ma wax lu ñaaw nee na ma ko saafaraan nag mooy dama naan ah kii di waxuma keneen a ko tax di wax fa a'rid anhum hatta yaxuudu fii hadiisin xayri waaw suñu Cheikh Aliou bi waxtu nekk ma di ko ma di ko ko fàttali léeg-léeg bi ñuy wax ma ne ko samaam Cheikh Mouhamadou Moustapha daana wax ne sama der biir bu doon mbuus du ma defati pepp ndax ay jam-jam comme doomu Sëriñ Tuubaa yooyu ci muntu ci nag képp ku jàpp ne mën nga jàmm ji da nga nax saw maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusuli min qablika léeg-léeg nit di ko wax may leen man de sant naa yàlla bu baax ndax ki may sant ak ki may tagg loo xam ne wóor na ña la gën foofu mënuñ caa mucc boo jàppee mën nga caa mucc da nga nax saw te Sëriñ Saliou Mbacké dadaa am wax dadaa am wax ju am solo mu daa dadaa wax ne li tax di tontonte amut solo mooy saa suñ la sosalee daal nee boo ca toppee di wedde nee na saa su xëyee ci weddente ngay dëkk nee walla wala bu dul loola bu fekkee dañoo wax li tey nga weddi ëllëg bi waxaat weddiwu nee na bu ëllëgee saa soo weddiwu rek yaa saxal bis ba nga waxut moo tax nag kon li lay noppoon rek mooy da ngay bañ a xam ne kii sant kii tagg te xam ne résultat yi rek moo koy atte kon loolu maa ngi ciy soñ ñépp te xam ne àdduna li am solo mooy ne def lu baax la ca des nag histoire koy atte ndax sëñ bi laa daana ne lépp loo bëgg def ci lu baax rek am nga lay wala ci génne lay wala ca war a génne dangay xeex moom bañ ko def ndax nee nee na ne fi ba jógee fi te defoo fi dara te defoo fi dara dara àdduna jëf ko kon nag. maa ngi soññu mbokki taalibe bi yëpp ak mbokki jullit yi ñu gën a góor góorgóorlu ci loolu bu baax a baax te xam itam yoon wi li taxoon Sëriñ Tuubaa sos ko ndax nañ xam ne yoon wi lépp lislaam la dara génn ci lislaam Sëriñ Tuubaa dafa wax ne yoon wa nga xam ne ca la rasulullahi sallallahu alayhi wa jaaroon ak saxaaba yi yoon woo rek li ñëw fekk mu far mu gajjaar gaj yi ba mu set mooy ne ci ñëpp jaar kon mbiram dara génn ci alquran ak sunna nadafatuhu kulli min allahi taharat wa sunnatahu insha rabbi yubayinu diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda lillahi wa bihi nujadilu kon Sëriñ Tuubaa nañu xam ne yoonu murid dara génn ci sariya dara génn ci lislaam léppam lislaam la képp ko koy dàkk itam na nga ko dàkk ci lislaam ndax dara génn mboolem lu ngeen mas a def lu ngeen mas a gis mu jëf ko ci lislaam itam dara génn ko ci ñi ko njëkk a topp di jàmbaar yu baax yooyu di seex seex su jëkk soosu yi nga xam ne ñëpp ku ci ne dangaa gàddaay bàyyi say bokk bàyyi say ñëpp ñëw jox jël jël sa bopp jébbal ko Sëriñ Tuubaa ñooña àdduna taxu leen woon a jóg lépp àll gi leen taxoon jóg bañ na ko ba bi lay sëriñ bi di njëkk a wàccee ci Touba ñi fi ne woon bari na booba sëñ Cheikh Adama Guèye Cheikh Ibrahima Sall Ndiagne maam Cheikh Ibra Fall sëñ Massamba Diop Samb sëñ Manoumbe ak ñu baree bari ñooñu ñëpp itam fekkoon nañ sëriñ bi bi leen sëriñ bi di wàcce ñoom ba ñu gàddaay di ànd ak sëriñ bi amu ci kenn koo xam ne jàppoon nga ne lii sëriñ Touba naa la wàccee. ndax ñoom dañoo jaayantoon ngir ëllëg Cheikh Ibrahima Fall ñëpp dégg nañ ba muy jébbalu ci sëriñ bi dama ko waxoon xam ngeen ne loolu xool fu sori gënu koo kawe dafa wax sëriñ bi ne ko daa ñëw ci sëriñ bi ne ko man de ki may wër bu ma amutoon ci moom benn jeexeet lu weesu na Cheikh Mahamadou Bassir nett na ko ci téeram lu dul ne asamaan si moo ko daa tiim biddi suuf si ci la daan wax biddiw yi daana ko tëj amu ci moom benn jeexeet bu weesu bokk sama pëstéef ak sama doobu mën na ma àggale ci yàlla ak li ma bëgg ci moom ma am ko Sëriñ Tuubaa ne ko Ibra sori nga lool moom da ko wax ni ko moomutoon ci moom benn jeexeet lu weesu ne ki ma doon wër bàmmeel ba ngi di tëdd doy na ma Sëriñ Tuubaa ne ko Ibra Fall di jàmbaar nga lool waaye man de rasulullahi bu ma amatoon ci moom benn tegtal lu weesu ne asamaan si yoo ko doon tiim mu ngi doon dox ci kaw suuf si sama posté ak sama dogu ak sama yéen dana ma am àggale ci moom li mu bëgg kon ñoom nañ xam fañ nekkoon ak Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fati ku ne xam na ne Serigne Touba wàcc na ko ay yoon yoon ci liggéey bi waaye saa su ko masaan wàcce mu ne ko Mbàkke kat yaa ma jëkk xëy ci liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te gisaguma la nga wàcc ba léegi kon ñoom dañoo amoon doom ñoom ñëpp kenn gënu ci mooy Sëñ Gaawaan Seex Masamba ba ci ñi nga xam ne sax ñoom la jural boppam di Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh Mouhamadou Amine Cheikh Mouhamadou Bachir ñoom ñi nga xam ne dund nañoo sëriñ bi lu yàgg ci kaw saahir ku ci ne dangaa futti ku laxasaay jaayante la nga bokk sëriñ bi jaay ko jënd ko taay bi ba sëriñ Tuubaa defal leen li mu defal ñii nga xam ne ñoom la seexaloon ñii mu seexaloon itam nañ xam ne loolu lu yàgg ci lu yàgg ci lislaam ndax boo delloo ci taarix ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Mus'ab Mus'ab ibnu ibnu ba ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di yónni Madina nga xam ne jiitu na gàddaay bi loolu mu taxawee fa ak taxawaay moo taxoon ku mel ne Ali ibn Abi Talib ba mu leen di yebal Yaman ñoom itam atteem loolu la woon mooy ñii Serigne Touba defaroon yebal leen ci biir réew mi kenn ku ci ne fa nga nekk nga taw nga taxawee fa taxawaayu Serigne Touba loola mooy li ñu tudd ak ceexam kon loolu sëriñ bi neen mu ngi koy fàttali taalibe ñoo xam ne sëriñ Touba ci mujj gi Cheikh Mouhamadou Fadil nettal na ko ñu bari ñoo xam ne ñu ngi dund mënoon mënoon na ma tudd sax seen tur sëriñ ci njaareem ci mujj gi la wax ne bàyyi na seex na loolu ñëpp dégg na histoire kon loolu du lu kenn war di fooyee ndax dafa màgg ci lislaam màgg ci yoon wu ndax ñooñu la leen sëriñ Touba defal ñëpp xam nañ ko kon nag sëriñ bi nee na mi nga xamante taalibe sëriñ Touba yëpp képp koo xam ne yaa ngi diglu ndigalam luy nuru yooyu ñuy foyalee bëggatu ko dégg muy ay seexal yu kenn xamul lu mu doon ndax loolu dafa màgg ci yoon bi màgg ci lislaam te diine kenn du ko fooyee ndax ku ko fooyee kat la la lay dal wala yaasu billaahi taala te moom yéenul kenn fitna yéenul kon kenn musiba képp koo xam ne yaa ngi tënku ci ndigalam wala kilifteefam dal loolu bëggatu ko dégg ku néew ci ron kilifteefam nag loolu moom yaa ko na xam ne kooku ci ñàll yi nga nekk ñàll yi nag ku ci nekk ku ci topp Serigne Touba neewoon na kuy fétal ku nekkat fuy fii ngay mujj kon wa anna haza siraati subula fatafarraqa bikum an kon loolu maa ngi koy fàttali bu baax a baax sëriñ bi daan nee xam na ne yoon wi dañ ko ko sàmmloo ni ko kilifaam yu jëkkee doon sàmme sëriñ Touba teg ko ci loxo bi kon fas na yéene. baaxawut nag lu agsi mu wax ca wala lu mënta wax waaye lépp loo xam ne lu mat a wax la lu mu ca war a wax dana ko ci wax te du ma ci du ma ci du ci diglu keneen ndax képp ku fi nekk di Serigne Touba Serigne Touba tànn la fi nga ne ci kanamu nit ñi weesu nga ay benn benn ay kenn nit ak ñaar di la wax ngay def ndax Serigne bi bu kenn jàpp ne dara ump na ko lépp lu xew rek dégg na ko waaye nag da ci am loo xam ne. ña fi nekkaloon Sëriñ Tuubaa jiitu ko nañ daa doxee doxin boobu du ko soppi mooy lu mat a wax dana ci wax ñëpp dégg ko waaye lu mat a wax nag bu ñëpp doon waxee tam tam tam gis ne lu mu war a wax la kenn mënta tax mu wax ci ndax yoon itam noonu la daa doxee te fasul yéene mu soppiku ci biir aw aw aw aw doxalinam loolu kon mi ngi koy xamal bokk taalibe bi yëpp di ko xamal bokk jullit yépp xam ne daal lañ ko sàmbaloo fas yéene duroo. ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam nag la Serigne Saliou Mbacké waxoon rek la leen di fàttali dafa waxoon ne da ngeen di jiitu ma topp seen ginnaaw wala ngeen jiitu ma topp seen nit nag boo ko xasee ba jiital da nga koy bañ koy jiitu te bañ jiitu te xam ne lépp loo xam ne war na ko def rek bu responsabilité am dikkee nam ko war a defee dana ko defe looloo fi bàyyi daray it daray bopp mu itteelu ko la Serigne Touba waxoon ne la law lal wa xidmatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa masalihul ayaali wa masalihul ayaali maa bittu fi dunia laylatan waxida dafa wax ne bu ak alxuraan ak liggéey rasulillahi salaam sallallahu alayhi wa ak njëriñul nit ñi lu ma fanaan ci àdduna lu génn guddi kon loolu itam na ci ñëpp bàyyi xel te xam ne kilifa boo ko jiitalee li alxuraan doon tere jullit ji ci wa minhum allasina na nabi wa yaquluuna huwa uznun am na ci ñu daa dem bay wax naan rasulullahi sallallahu alayhi wasallam benn nopp la loolu waxtu ne nga di ko dégg ci nit ñi waaye alxuraan da koo tontoon dafa wax ne xuluznu xayrin lakum not nopp boo xam ne yiw rek lay dégg nee boo bu fekkee benn nopp lay lu baax la kon sëriñ bi itam nañ xam ne waxtu ne yittee nit ñi rek moo fi bàyyi ak bàyyi leen xel kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp te fàttali ko rek diggante Moussa ak Xudar hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusdan mimma ba nga xamee ne yonent yàlla Moussa fekk na Xudar ñëw topp ko ne ko damaa bëgg nga xamal ma ci la suñu borom xamal da ko wax ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabran mënoo ànd ak man ndax li may def mënoo koo xam te firi lu ma ñu dox tuuti xataa iza rakiba fi safinati xaraqaha xaala axraqtaha li tuxriqa ahlaha laqad jita sayan imran bañ doxee tuuti gaal ga mu duggoon mu bëttu gaal ga la mel na luy bëgg a lab ci géej gi ndax gaal gu bees la woon mu ne ko lii nga def loj jublu mu ne ko waxoon naa ne bu ma laaj mu ne ko jéggal ma ne dama ko fàtte bi ma nasit wala turhiqni min amri usra bañ du xaatee tuuti xata ida laqiya xulaaman fa qatalahu qaala a qatalta nafsan zakiyatan bi xayri nafsin ndax jiita say nukra mu dajeeg nit as mu rey ko mu ne ko ah, yow li nga def kenn mës ko gis fekk koo jotul dara nga jeg ci rey ko mu ne ko waxoon naa leen ne boo àndeek man bu ma laaj mu ne ko in sha'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni usra mu ne ko ma la laa jaatee nag ñu tàggoo ñu doxaat tuuti mu fekk ak miir foo wajada fiha jidaaran yuridu an yanqadda fa aqaamahu qaala law shi'ta la taqta'a li ajran qaala haadha firaaqu bayni wa baynaka sa unabbi'uka bi taawili ma lam tastati' alayhi sabran mu ne ko nag danaa la yi ma jaaroon taxawu mu ne ko ki ma njëkk romb muy gaal bi nga xam ne dama ko jékki-jékki bëtt ko dafa am wa kaana waraahum ko yaaxusu kulla safinata xasban dafa am benn buur bu jeng boo xam ne gépp gaal bu mu séen te dara sikku ci rek dana feex ba teg ci loxoom te bëggu moon seen borom ñàkk ko mu ne ko kii ma dajalaat rey ko itam ñaari baay baayam day day ñaar day ñaari waajum day yu baax fa xashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufran te buñ bu demee ba màgg daañu leen danañ ko du daañu leen dugal ci kéefar te bëgguma loolu am moo tax ma rek miir ba mu fekkoon muy bëgg a daanu mu defar ko itam mu ne ko dafa am koo xam ne baayam dafa nekkoon ku baax mu denceloon ko am koom ci suuf miir ba te miir ba bu daal nit ñi danañ xam ne am koom fa ne moo tax ma defaraat ko kon képp koo xam ne ànd ngaa nitu yàlla te la muy gis gisoo ko la muy xam xamu ko am na ci loo xam ne itam kat bu fekkente ne dem na ba yaa koy wax la nga la mu war a def boobaa kon dégg nga ni jiital kenn xamatul lu muy njëriñ sëriñ Cheikh suñu saal yi mos ko fi wax am mbooloo daal jëkk bañ dikkee mooy la man de li ma miinoon ci yoon wi mooy. ab sëriñ day jiitu taalib yi topp ja waaye bu fekkee taalib yi lay wax ni nga war a jaar nag kon boobaa day mel ne ngeen jiitu ma topp gi nag muy gën euh, fi may jeexale itam mooy soññaat rek waa comité organisation bi war màggal gi ndax ni ma ko waxee woon rek ay commission yu bari lañ ko def yoo xam ne mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi ñu ngi ci biir ci biir mbooloo mi war naa ma juróom-ñetti commission kon ñoom itam ñu ngi leen di soññ ci liggéey bi ñu gën cee góorgóor na xam ne ni ñu ngi ci woon waaye nag ki ne ci yoon li ñuy wax waa góor ndax euh, loolu ma fàttali léegi rek ci ci kilifa yooyu xam ne yoonu Sëriñ Tuubaa moom kenn du wàcc wa'bud rabbaka hattaa yaatiyakal yaqiin rek la te aj ndax jaamu yàlla kon ñu ngi ciy soñ ñëpp ñëpp ëpp ci poste gën cee doole poste majlisu suuraa bi nga xam ne itam ñi nga xam ne dañoo bokk ci yoonu murit te di ay mag te mënuñoo bokk ci biir ay commission ñooñu itam lañ tànnoon def leen ca majlis shura bi loolu itam diirum ñaari at suñu Cheikh Aliou mi moo ko jiitoo woon loolu itam fas na yéene itam joxaat naa ci suñu Cheikh ndigal di yeesalaat ko mooy itam ñu gën cee defaat possible daje yi di gën a bari ndax loolu itam lépp njariñ rek lay doon ci yoon wi ndax bu ñu sañoon kat lii ñu sëriñ bi di liggéeyoo lépp jag lépp baax. kon ñoom itam ñi ngi soñ ñëpp di gërëm ñëpp di itam ñi nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Abdou maa ngi ko doon yóbbante ndigal li ma sëriñ bi wax te wax ko sëriñ Cheikh Jëmbu Fall mi nga xam ne mooy xalif général de Baye Fall mooy mbale mi nga xam ne ñu ngi ko daa def ci dëkk bi sëriñ bi mu ngi leen ci soñ bu baax a baax di ci yi soññi taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñu xam ne setal dëkk bi dara ëpp ko tuyaaba ma ndax mas sama dégg ci sëriñ son yi mu ne am na ko ñu wax sëriñ Banda saw bokkoon na ci magi sëriñ bi Cheikh Ibrahima mas na ko fekk ci njaareem fekk muy buub ëttu kër sëriñ bi Cheikh Ibrahima di wax naan ci ko xamoon li ne ci buub ëttu kër sëriñ bi ak setam ko kon loolu tam bu ci accepté ne ci taal bi yëpp am ko seet te góorgóorlu ci te def ci positif te xam ne liñ ci def lépp Sëriñ Tuubaa lañ koy jëfal xam naa nag ngir bañ a guddal te am na ci ay benn benn laaj yoo xam ne euh, Sëriñ ab Lahad waxoon na ma ne ñi fi nekk sàkkoo nañ ci ay leeral te waxtu suñu kat mi ngi bëgg a dugg si xanaa ñu julli ba ma door àggale ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne noddu ñaari baat rekk la mooy allahu akbar laa ilaaha illallah mu ne allahu akbar mooy lu mu la fekk leen lu ne lu ko gën a wër ñëw na mu ne laa ilaha illallah it mooy foofu mënti jëm te du man yàlla mu ne foofu doo fa jële dara kon nañ jeexal waxtaani foofu ba julli door a àggale benn benn laaj yi nga xam ne bëggoon nañ cee tàbbi ak yi nga xam ne war nañ ko àgg salaamaaleykum wa rahmatullahi waaye damaa fekk ci ay coono yu sësëba yu xaw bari moo tax mu xaw feeñ sax ci kàddu gi ba li ñuy wax sapp licence bari lu ma dal ci biir wax ji waaye nag ñu xam ne ñàkk mata doomu adama la bu ngeen gisee itam bi ko sëñ bi waxee sàkkoo ne yéen ñi fi teew bëgg ngeen ñu ay laaj loolu itam lépp dafa xam ne luy gën a rafetal liggéey bi la ndax euh, sëriñ bi dañu fee teg lu dox diggam nit ñi waxtu ne waxtu nekk itam bokk na ci liy jiitu ci suñu itte mooy di xam tolluwaayu nit ñi ndax Seydina Ali da daa wax ne kallimu naasa ala qadri uqulihim nit ñi booy wax ak ñoom dangay wax ak ñoom fa seen xel toll kon day jàddu boo nekkee ci kanamu nit ñi itam waxtu wu nekk ngay diglu fi nit ñi toll xam seeni xar-xar xam seen jafe-jafe ci biir loolu itam moo waral néew na ma am ñaari fan wala ñett te wëraluma sama bopp dëkk bi moo tax li fi xew lépp maa ngi koy xamal sama bopp ndax loolu tam damay jàpp ne warugar la ci man ndax luñ la wax wax rek am na ci loo xam ne nga tegal sa sa bët baax na ci te waxtu wu nekk damay wax ne. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana alquran moo ko santaane te al ulama warasatul anbiya kon ñun itam suñu warteef yëpp mooy jéem roy ci suñu kilifa yu tedd ñoo war a nekk suñu reteef mënuñ leen jot nag la Cheikh Mouhamadou Fadi Mbacké waxoon rek duma duma kooka te ñooñu du ñii waaye sañ na ma roy ñu itam foofu rek lañ toll suñu doxee mooy dee jëmma te daanaa gis Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak Serigne Salim lu ma sànni xew ci dëkk bi buñ dee laaj nit boo leen dee nett bi bu fekkee dangaa bëgg a tëb la nga xam day nurul wax ju tiis wala ju metti wala loo xam ne buñ ko déggee day da ngay yaakaar ne dëppwut ak ay teggin bu dee Serigne Salim dadaa wax ne dadaa wax ne loolu ngay nëbb wala lii si mënta wax loolu laa soxla xam kon loolu ñuy itam dañ leen ci jéem a moo tax itam lu ci ëpp danañ ko toppal suñu bopp di ko xam li yees ci màggal gi am na ko ko jëkk laaj ba xam lan lañ ci def ren liñ ci li ci soppi ko bëriwut lenn rek moo ci xaw a soppiku mooy waxtaan yi ñu daan def bitim réew conférence yi ñu fi daan def ren mujjuñ ko def ndax ñu ngi jéggulu sax ci réew yu bari yi ko laaj laajoon ndax am na ñeenti réew ba juróom yoo xam ne ku ci ne yónni nga fi ndaw doon ko sàkk ngir bëggoon ñu ubbee ko fa waaye dafa xat ci ñoom mooy fu mel ne Turquie ak fu mel ne Belgique fu mel ni Afrique du Sud fu mel ne Maroc ak fu mel ne Brésil ñoom kenn ku ci ne sàkk woon nga ko bañ xaw laa jox suñu kàddu sax waaye nag maa faala al jalilu fa huwa al jamil ñu jàppee ko noonu rek te xam ne bi si Sëriñ Tuubaa yi fay def itam moom li ñuy fay def rek lenn la yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada daana ko fa def at mu jot santaane ko teel bi Sëriñ Tuubaa yi di ko fa def bi mu fi bàyyeekoo itam suñ maam di ko wéyal mooy li ñu fay def benn liggéey bi rek la kon bu ñu ko defut tam ak loola lenn la li nga xam ne ñu ngi koy def ci biir réew mi itam bokk na ci li kiy jëkkalaat ci ñi nga xam ne ñoo daal jiitu di xaafilatu màggal man noonu laa koy faral di tudde ndax boo waxee baatu karawaan bi sax dafay am leen lu lay xaw a jox te mustalax dafa am solo ci biir xëy na nag boo ko firi doo firi ci tubaab loolu lay firi waaye loola lañ ci gën a jublu dëgg-dëgg rek mooy topp jeexit Sëriñ Tuubaa bépp barab boo xam ne Sëriñ Tuubaa jaaroon na fa wala bu fa jaarut tam ay magam ay ay ñi nga xam ne ñoom lañ dëkk defar ñoo ko dem sanc fa def ay dëkk ak dëkk yi nga xam ne sa bokkuñ ci yoon bi waaye ay mbokku jullit lañ ngir gën a dajale al uxuwatul islamiyya lañ ci gën a jublu loolu itam ren jii nañ ko daa defe fa suñ jéene bàyyi ko ren dañoo boole région bi ñuy wax Sine Saloum ñoom ñoo fay dem euh, tàmbulee ko ci Fatick ak Kaffrine ak fépp ba ci Kaolack région Kaolack it fa lañ ko fas yéene tëje fas naa yéene incha allah. bu àndee dogalu suñu borom ma teewee ko loolu laa fas yéene ñu ngi koy xamal bokk taal bi yëpp wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika xada illa insha allah waaye nag li ñu fas yéene mooy insha allah bu àndee dogalu suñu borom ñoo ko teewee suñu bopp bu dee ca Ndakaaru itam am nañ fa ñetti bis ñoo xam ne danañ ko def ña ngi koy ubbee fi ñuy wax Mbambiloo ak la ko wër lépp ay tënk ji yëpp ci lañ bokk ak beneen bis boo xam ne bisu xam na boo xam ne ñu ngi koy defe ci ñu ngi koy defe ci ci ci Massalikul Jinaan foofa itam danañ ci invité ay réew yu bare bari ñu teewe ko mooy tëjte la ñu door a dugg ci biir màggal gi kon loolu bokk na ci programme yi nga xam ne daal dañ ko def dara soppiwu ci mboolem li ñu daa def ci biir màggal bi itam ba ci njàngum alxuraan mi nga xam ne ñu ngi ko daan def ci biir karam it bi ci ñetti fani màggal gi nga xam ne buñ buñ nee suba la màggal bi bisu màggal gi ci topp lépp bu ñu xasee ubbi njàng mi du taxaw benn yoon dara soppi bu ci exposition bi nga xam ne ñu ko daal def fii ci buñu kër Cheikh Amadou Fadil te maa ko daal dénk waa ISRA dara soppi ko ci mboolem yi ñu daal def yëpp daal xawma ci dara loo xam ne soppi nañ ko ci lu weesu dañuy fexe ba yokk ko ba mu gën a yaatu thème yi nga xam ne itam moom lañuy waxtaane am na ko ko laaj loolu itam ni nga xamee kuréel ki nga xam ne mooy saytu màggal yi dañ ko def ay xaaj. am ci commission boo xam ne moo tudd culture ak communication Serigne Abdoul Ahad Mbacké ñu moo ko jiite te soo commission bi ñuy wax culture te waa daayira Torodu Rayaahin ne ca liggéey nañ ci Serigne bi ñoom waa daayira Torodu Rayaahin ndax ñoo ko daan saytu at jot ba tànn nañ thème yi nga xam ne moom la war a waxtaanee ren la ci ëpp bokk na ci niñ gën a dëgërale bokkuk lislaam bi niñ gën a dëgërale bokkuk lislaam bi. ak it waxtaan yi ci murid saadix ni mu war a mel ay yeneen tam yi nga xam ne ñoom xam naa buñ di ci dikkee danañ ko gën a leer ci biir dëkk bi itam am na fi ñaari pénc yoo xam ne danañ fa dem def fa ay conférence ndax euh, ci bu dee ci genn wet gi sëriñ Afe mi nga xam ne doomu Maam Mor Anta Saly di rakk ci sëriñ bi te sëriñ bi fonkoon ko lool benn ci moom lañ ko def defe ko ci biir njabootam ba ca des itam ci sëriñ Darou Assane Ndiaye ndax yoon itam noonu lañ koy doxale fa lañ koy defe ndax sëriñ Darou Assane Ndiaye itam ku ne dégg na li sëriñ Touba daa wax ci moom ndax ku dem ba mën wóotu sëriñ bi ci ci jot ko ci bakkan kooku àgg ci borom la dégg naa sëriñ bi daa wax ne daana wax ne képp ku mu topp si ginnaaw ne war ngaa góorgóorlu bu baax ndax boo yeex rek mu weesu la jàll kon moom itam moo tax ñi nga xam ne sëriñ Touba da leen a defar waxtu nekk damay xam ne ne ñoom. ci lañ mën a xamee sëriñ bi dëgg dëgg dëgg am na ko laaj itam ci wàllu ndigal li ma sëriñ bi wax ci wàllu seexal yi loolu itam li ma ci waxoon leer na ndax sëriñ bi duñ ko waxul lu mu waxut fu ñu yam loolu itam fa ñu yam li nga xam daal responsabilité la mooy li nga xam ne ci ak xilaafam la tàmbule la wax ne bëggatut a dégg kenn ku ko def la ko jëkk nag ñoom dañuy war warmaali seeni kilifa ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne defoon nañ ko ci kanamam bu ko dëggul itam tam maanu ci loolu la ñuy àtte ba la ca la ca xew ñëpp xam nañ ko waaye sëriñ bi daal ndigal li mu joxe mooy loolu ku ne dégg na ko coon ndax dafay bëgg yaatu la wax ne bëggatu koo dégg te fu mu ko déggee itam ba mu leer ko ne lu wér lee dana ko tere ni mu teree lii ndax looloo fi bàyyi mooy digle ak tere fasu yéene déggati ko ndax loolu du lu ñuy fooyee du lu ñuy jaxaane ndax day lu sell loo xam ne taklif la waaye nekku tashrif moom mooy seexal responsabilité la gën doon waaye du daraja joo xam ne lu ñu lu lu mel na lu nit di tedd la wala lu ñu noose la ndax képp koo xam ne yeyoo ko bañ jox la ko am na neen lu war a nekk sa bopp lu weesu jàpp ne mbuumbaay la wala am po war a kon loolu itam wax ju leer la jox xam ne sëriñ bi bëggatu koo dégg dafa maasale liñ laaj itam ci Touba li mu wax ne yi nga xam ne ñu ngi ko fi jëf def loola moom li dañuy xam ne loolu dafa ànd ak adduna ndax boo demee ci sariya sax mu ta jaaxir li kabaayir bokkut ak bàkkaar ki koy def li nga li nga teg sa bët nga mën a àtte ndax sëriñ bi moom lim man mooy digle ak tere ba ca desaatit mooy teg na ko ci loxo yi ñoo xam ne ña ngi cay góorgóorlu waa muy waa Safinul Aman ñi nga xam ne Serigne Modou Lo Ngabou moo ko jiite moo itam ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm ndax yëg nañ ne ñu ngi ciy def góorgóorlu la mën li nga xam ne nag ñenn ñi dañuy wóoteeg ndigal ya loolee itam Serigne bi ci soññ te xam ne lépp loo xam ne tere na ko kat terewu ko ci bakkanam waaye lépp lu mu tere lu ne daa fekk lislaam tere ko mu sukkandiku ci tere ga ko lislaam tere mu bañ ko ci dëkk bi nabiyuna xayrul wara xaaradi fi kulli shay'in wa maabahu yabo lépp loo xam ne sëriñ bi bëgg ko ci dëkk bi nañ xam ne ci munkar yi la bokk te munkar yi kat képp ko topp ku ne musiba nga ci jële te sëriñ Tuubaa ñaan na suñ borom ne ko man manfaan li kulli haadin muslimi wa madfaan an kulli haadin mujrim kon képp koo xam ne yaa ngi koy def itam na la wóor ne sa mujj moom du rafet ba ca desit mooy loo xam ne itam dama ko waroon a waxaale ci biir wax ja la fàtte ko mooy ci biir jumaa ji ci li tàmbalee ci giri bi jëm ci biir daaw dañoo seetlu ne doon nañ def ay plateau ci biir miir bi am na ci yoo xam ne ma fa rombal saabu fekk ñu tàmbali faa monté ma woo dayoo mu xaddamatu na jox leen ci ndigal ñu tere ko fa sensé yi lañ ko tere waaye loolu itam ci ndigalu sëriñ bi ñu ngi ko yeesal li nga xam ne mooy biir miir bi daal bëgg duñ fee gis kenn ko fi def plateau ci biir. ndax kat nañ xam ne jumaa néegub yàlla la wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan te biir wax yooyee fay génn léeg nga dégg ci loo xam ne wuri su ko wax ci fu jege Sëriñ Tuubaa te mënoo contrôler yëpp kon biir biir miir moom joxe nañ digal képp koo xam ne defati nga ko lala cay fekk moom da da ko xam yeesal nañ digale ci daayatu Muxaddamatul Xidma wax leen ne nañ fexe ba bu kenn duggati ci biir ñu di fi def dara ndax loolu kat bokkut ak war mbay Sëriñ Tuubaa li nga xam ne mooy li ci penc mi ci bitti nag loolu moom mënees na ko tolore waaye nag li ci biir miir moom bëggatuñ kenn ku fa dem ci biir dafa arrêté dafa teg ay nit ñu toog ñu fa toog di ñu toog fa di waxtaan ndax xam na ni jàkk loolu taxu ko jóg kon loolu tam ñu ngi koy yeesal bu baax ak njaay yi nga xam ne nag ñu ngi koy jaay ci li ci penc bi te dëppoot ak lislaam wala muy loo xam ne dëppoot sax ngor wala dëppoot ak aada ju rafet loolu tam ñu ngi koy tere ndax la sëriñ bi waxoon ne jàkka jàkka la waaye ku bëgg jaay da ngay dem ba ci marché la kon loolu tam ñu ngi koy yeesal di ko fàttali bu baax ndax mbedd yi kat boo fi rombee sax da ngay ndax da ngay gis ku dem ba ci diggu mbedd mu taw fa ak biti di fa jaay te fekk na mënoon naa dem ci marché ndax loolu bu ko ñëpp defee li ñuy wax fawdaa rek la jur kon ñu ngi koy fàttali sëriñ bi itam yeesal na ndigal li ci waa commune bi nga xam ne Abdou Lahad Ka moo ko jiite jox na leen ci ndigal ñu fexe ba dëkk bi daal xar kanam bi dëppook dëpp dëppook dëpp dëkkub Serigne Touba ku fi dëkk ko ne xam ne dëkkub diine kon loolu tamit ñu koy fàttali bu baax baax li nga xam ne nag mooy naal yi nga xam ne sëriñ bi am na ko day mel ne may soo ko tënk ci ñetti fànn benn bi mooy jumaay Touba ji ba ca des mooy kër Serigne Touba gi ci Darou Manane ba ci des mooy Masaalikul Jinaan ba ci des mooy université bi nga xam ne mooy daaree Serigne Touba ji nga xam ne naal na ko bu dee ci jumaay Touba ji dina am tuuti lu ma ci leeral ndax waxtu wu nekk nit ñi dañuy laaj liggéey bi dafa liggéey bi dafa yeex dafa yeex ñenn ñi day wax dem bay wax ne architecte bi waxoon na ne xaw ma ñaati weer sax fàtte naa ko fukki weer juróom. xamatuma lim ba waaye la mu waxoon loolu daa am tuuti lu ma ci leeral rek mooy foofu njuumte da ci am ndax architecte ba muy wax loolu waxtaanee ko teg entreprise bi ba xam sax lañ ca war def lu mu doon boobu dafa def ay dessin entreprise yi def dëbim waxaguñ sax ba xam karo yi ca war a demee mu demee moom mu jekki-jekki waxal bopp ne nangam la loolu sax wax naa ko ba tàyyi ne ko war nga koo leeral nit ñi ndax yaa xaw a yóbbu nit ñi njuumte ndax waxtu nekk nit ñi bu xasee mat fukki weer nangam rek dañuy jàpp liggéey bi dafa war a àgg. te fekk na liggéey ba dox na juróom-ñeenti weer sax plan yi loolu noppi ci biir loolu itam am na ci plan yoo xam ne entrepreneur bi nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéey bi ci loxoom ndax ñetti entrepreneur ñett ñetti entreprise ñoo ciy liggéey am na ci entreprise yoo xam ne plan yi ñu war a jot sax am na ci yoo xam ne jotaguñ ko wala dañ cee door a jot lépp pour weer kon loolu itam mu leer noonu nit ñi xam ne liggéey bi dër dafa bari ay fànn ndax jumaa ji am na lu mat fukki at ak nangam loo xam ne xam nañ dafa amoon intensité te bari ab liggéey ci biir boo demee ba ci biir liggéey ba itam am na ca ci xubba bu mag ba fi ñu jullee la ci ëpp or lañ ko def xam nga liggéeyu or bu ñu def ci loxo loolu doon lu mën a gaaw ak décoration yi ku ci dugal sa ba ci biir am na ci ñoo xam ne nag dañuy romb ci biir rek lu ñu xam liggéey bi nu mu demee ñu ne liggéey bi dafa yeex wala ñu jàpp ne liggéey bi dafa taxaw te fekk taxawut fekk dugguñ ci biir ndax fànn yi yañ cay liggéey dafa bari waaye amu ci benn bis yoo xam ne xëy na entreprise bi xëy na te liggéeyatu moom ma nga xam ne mooy entreprise ba bi ko sëriñ bi jox moo koy liggéey itam dañ ko boore boole bureau contrôle bu koy saytu boole ko geneen kuréel goo xam ne ñoom seen jëm bopp ñooy saytu liggéey ba ñooña man mii maa leen di fay lu bokk ak bureau contrôle bi nga xam ne dañ koy lu luñ saytu ba liggéey ko ba xool ko ba mu wóor na leen lii lii baax na ñaar ñëpp xool ko ba mu baax. ñoom ñu door leen di sëriñ bi sëriñ bi fayal leen boppam waaye sëriñ bi moom waxtu ne day soññ waaye dara lu ca tagge ci moom amut waxtu ne sax day soññe di wax naan dañoo gëj a laajub xaalis léegi bu ko waxee nag bu tollee ci étape boo xam ne dafa fekk conteneur bi ak siwul wala ñooy mënti mënaguñu liggéey dama naan ko ku liggéey mëni su ko fay waaye sëriñ bi moom pëstéef boobu la ci liggéey ba itam lu tegu ci yoon la ndax ñoom luñ cee liggéey ba xool ko ba ci yoon sëriñ bee leen di bindalub chèque fay leen chèque ba mu leen di fayee itam ñetti signature la benn bi sëriñ bee koy signé bi ci sëriñ Mountakha signé ko ba jëre sëriñ Ahmadou Moukhtar signé ko signature yëpp noonu la demee loolu itam leerul ci nit ñi te liggéey bi jàpp naa ne la ci ëpp bu doon téeméer juróom-ñaar fukki wala juróom-ñaar fukki yi jàll xëy na mëni su ta joxe dat ne dat sàngam naan àgg waaye li ci ëpp moom xam naa ne àgg na des na nag yeneen yu ci ay modification yu ci amaat waaye li ci ëpp moom àgg na bu dee liggéey Daaru Manaan bi itam ñëpp gis nañ ko ndax bi sëriñ bi di ñëw fekkoon na waa Matlaboul Fawzayni la leen fa sëriñ Saliou santoon ñu defoon fa ñaari bâtiment ak jàkk liggéey ko ba mu sore waaye jutta àgg sëriñ bi yëkkati juróomi téeméeri million jox ko mun taxaw mu tëkkee sondo ñu àggale ca bâtiment yi mu di saat fa yeneen ñaari bâtiment yoo xam ne Sëriñ Ahmadou Muxtaar moo koy taxaw loolee itam liggéey ba sori na benn bâtiment ba àgg na am na beneen ba ca des itam buñ ci màggalu màggali jàllee daanaka dana àgg am na fa yeneen bâtiment yoo xam ne itam lenn ci waa kër Serigne Touba ñu di ko liggéey waa kër Serigne Massamba jox leen fa liggéey tàmbali nañ ko waa kër Serigne Manoumbe di Serigne Ibra Khoudia jox na ko fa liggéey fii ci kër Serigne Touba gi itam Serigne Cheikh mu Serigne moo doxee moom itam gis ngeen di ko Serigne doon liggéeyloo moom itam daanaka àgg na jàpp naan bu amaatee ba dana àgg. am na fi yeneen liggéey yoo xam ne sëriñ bi nga koy bëgg a tàmbali fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi xëy na fii ak fukki fan ñu tàmbali ko loolu itam dana sori bu dee ca liggéeyu Masaalikul Jinaan ba itam liggéeyu Masaalikul Jinaan ba itam wax ji de caa bari ndax nit ñi ci ëpp dañuy wax lu ñu xamut ndax liggéey ba day liggéey bu jafe-jafe ndax pàkk ba dee barabu ndox ña ko sëriñ bi tegoon ci seen loxo ndax sëñ Muntaxa li dafa jëwriñ ja toftal ma ca sëñ Muntaxa jiitalaan ma tànn ab commission teg ko liggéey bi ci seen loxo ñoom ñu di ko saytu ñu leen di soññ di fa dem barab ba doon fu jafe ndax dafa nekkoon barabu ndox ci biir loolu itam bi nga xamee def na étude de sol bi ba xam ne dafa war a am micropaye micropaye yi rek lañ ci ñàkk jege na un milliard sëkk ba rek ndax suuf su baaxutoon euh, dañ koo gas lu jege ñaari mètre suuf sëkk ko sëkk ba rek jël na lu jege juróom téeméeri million te entreprise bañ ko joxoon sax un milliard la facturé waaye ñoom comi commission ba nga xam ne mooy yoroon liggéey bi mooy xoolal boppam seet nu mu jëndale boppam suuf si ak li ko taalibee def ba tax mu wàññi ko àgg microprix yi door am liggéey bi door maa tàmbali ñu liggéey te ñu ñu liggéey ko ci lu ëpp ñaareet li ñuy wax grosso modo mooy tawax bi lépp àgg muy loo xam ne itam ñañ ko liggéey ñu ko tegoon seen loxo wan nañ ci ak njàmbaar ndax jumaa ji rëy na ndax boo boo booloon jumaay Tuubaa jii li nga xam ne mooy jumaa ju jëkk ji ak li fi Sëñ Abdu yokk lépp boo ko boolee Masaalikul Jinaan kopp kon loolu du liggéey bu tuuti hmm. te bu dee ci siggiwaay bi itam boo ko doon natt mën na ñetti étage ci kaw jëmmi tabax bi mu àggee nag diggante daaw ren ñoom ña nga ca yi finition nag finition yi jàkk bokkut ak finition yi kër ndax finition yi kër da agsi seet faux plafond nga tàmbali wala nga tàmbali karo wala nga dem ci ministère mu defar la say bunt bu dee jàkk ji ne bokkute loolu plan yi képp ña ci doon liggéey liggéey nañ ci at muy door nopp bi mu noppee léegi matagul ñaari weer ci biir loolu itam dana bari ñu doon wax naan liggéey bi doxul te fekk dañoo dimu ci liggéey ba ndax boo fa rombee jàll doo xam ne ñu ngay liggéey ci biir waaye fekkoon na miir yi ñu doon dagg ci biir ak finition ay ba ci intensité bi biñ ko tàmbalee lay ëpp ñaareel bu fekkee àgg na day door toll ci àgg te loolu lépp nit ñi xamuñ ko wàllu électricité bi tam ñoo ña ngay ca woon di liggéey ak yeneen jàkka yu ndaw yi li ci ginnaaw mooy jullikaay jigéen ñi ak benn yeneen salle yu ca ne ba fii mu ne lu ëpp weer bi nga xamee ne sëriñ bi joxoon na ndigal architecte bi di may sa Touré ak mbàkk yu fay ma nga xam ne moom lañ jiite ci liggéey bi ñu dem di wax ak ñi war a def finition yi ginnaaw bi la ma sëriñ bi yebal. jox ma ndigal naa fa naa fa dem soññ leen ba ma demee itam waxtaan ak ñoom xamal leen ni sëriñ bi yàkkamtee liggéey bi ak ni mu bëgg ñu ubbi ko fii ak déwén ca la nekkoon ma liggéey ci ak lu ma juróom-ñaari fan ca lañ ñu jóge foofu dem Allemagne ci ba nga xam ne moo ko defar ñu cay liggéey jóge fa ñoom ñu dem Maroc seeti naar yi nga xam ñu war tàmbali décoration ba fii muy fii muy wax ak yéen del xam naa lu ëpp ñaar fi conteneur moom départ na lu ëpp fukki fan. xamagum ba xamagum ba agsi na ñoom déet na waaye bu agsi wut ci fi mu toll nii itam xam naa balaa mat semaine dana agsi kon loolu moom tàmbali na naar yi nga xam ñoo war a tàmbali décoration bi it bi ma ci mujj xam dara ëpp na juróom fan yëg naa ne ñu ngi Sénégal waxtaan ak ñoom ngir war a tàmbali liggéey ba étanchéité bi itam moo mujjee laaj bi ñuy bëgg a julli bu àggut itam la cees bëriwul ñoom daal li ñu wax sëriñ bi jaam nag ak doog ak pexem yàlla ak dogalam waaye li ñu wax sëriñ bi daal ne moom lañ fas yéene mooy nee nañ ko daal liñ ñaan mooy boo fay dellusiwaat déwén di gunge ñiy dem Màkka fes na yéene feex bi ubbi ko loolu ñu wax si ñu ngi leen ci ñaan rek suñu borom dimbali leen ci ba loolu àgg mu des itam wàllu université bi université bi itam sëriñ bi da ko wax université ku ne xam na ne lu yaatu na état sax yomb ko ndax faaw sax ñoom ñu wut bitim réew ñu leen ci jàppale te yoonu murid du waxe noonu ndax sëñ Abdou daa wax ne mbañum yoon yi mooy tàllal sa loxo ku dul yàlla maddu yeddi li xayrihi indi junoon wa qaada li xayral xalaali urfun Sëriñ Tuba loolu dafa bokk ci mbañam mooy tàllal loxoom ku dul yàlla bi muy santaane jumaa njaarim ji itam netti woon naa fi daaw lam ci waxoon ñëpp dégg mooy lépp loo xam ne sumbati ngeen ko muy lu mel ne néegu yàlla bi wala lu ne demee na ci sukkandiku ca la ngeen man ba fa ngeen mën la ngeen mënut ngeen laxasaayu wuti ko ci anam gu sell te fu ngeen ci ngeen toog ngeen toog xaar fa sayaj'alu llaahu ba'da usrin yusra loolee Sëriñ Tuubaa santaane woon daf sëriñ ko yéene wàcc moom moo tax ci biir loolu ba ma ko santaane nit ñi itam góorgóorlu ndax sëriñ bi ngi leen di sant ndax ku ne xam na ne eh, milliard léegi la yomb waaye du bu njëkk ndax Cheikh Mahmoud Moustapha bi muy seet bi muy santaane jumaa ji ku ne xam ne jamono ji naqari woon na tubaab yi teg ko ci condition yu méttee métti tàmbulee ci raay bi mu joxe ñetti junni nit maam Cheikh Ibrahima ci ñi ci ëppale woon mu tànnoon ci mboolem këri yoon ak Cheikh yi kenn ku ci ne joxe ay nit ñu liggéey ko ba raay bi àgg ñu tàmbali jumaa ji waaye yooyu jamono xam ngeen ne xaalis yombutoon sëriñ bi nag laaj na fi daaw jéeg laajaa fi daaw jéeg waaye lu ci ne itam nee na bëgg dimbale nit ñi tax waaye jox bi dafa jiitu laaj bi ndax amu ci benn yoon boo xam ne sëriñ bi laaj na te la laaj yëkkatiwul xaalis bu bari boo xam ne mën naa sori ci liggéey bi ne maa ko ci tàmbali nga xam ne bu laajutoon kenn itam balaa loo laaj yax taalib yi dinañ fa indiwul indi ko te loolu lépp itam euh, sëriñ Touba di ko suñu borom defal mosu ko defal kenn ndax koo xam ne li ne nit ñi jox. ku agsi dala ko jox boo ko lakkee sa baax na te sëriñ bi lépp lu ko ni jox balaa ma diir bu gàtt du fa am weer ci kër ga mu dajale ko yóbbu ko ci compte Sëriñ Tuubaa ku vérifié li mu wax dangeen ko xam te fu ci ne ñett signature ko fay génne loolu ak maam te ko kon ñoom li leen di dikkal xam nañ fa mu jóge waaye xam nañ suñ koy defal di kon loolu itam ñëpp war nañ ko xam ñoo xam ne université boobu itam bi ko sëriñ bi santaane ña nga woon ca ya plan ya bi mu àggee léegi ëpp wut ñaari weer plan ya ñàkk nañ ci lu ëpp ñeent fukki million jërtoon sax ma di ko leeral waaye man mii maa ko joxe ci sama xaalis def ko addi Sëriñ Tuubaa ba mu noppee itam jébbal naa ko sëriñ bi di ca diglu ndigalam ba moom mooy xam kam koy sant ngir mu liggéey ko am na ci kenn ci kilifa yoon yi koo xam ne sëriñ bi jox na ko ci benn bâtiment muy suñu am di xalifa ngir mu war koo liggéey pana yi nga xam ne mooy eh, yi yi yi ci biir moom moom moom lañ ko joxoon mooy pana béton arab bi waaye bu noppee mu daal ko tàmbali leneen la ca itam sëriñ bee tànn entreprise ba mu ko jox mu liggéey ko ndax ñun loolu waxtu wu nekk duñ ci dugg ndax ba ci liggéey bii bi ko sëriñ bi santaan dama ne ko woon li ma jàpp ne moo gën de ndax ñëpp sa njaboot la ñëpp ci am yéene waaye li gën nañ ko teg ci loxo yi ay nit tànn lu mat fukki nit ñooña def ko appel d'offre appel d'offre ba nga xam ne ku ko gañe dañuy xam ne da nga ko gañe ci yeyoo ba entreprise ba nga xam ne moo ko gañee di ko liggéey itam bi mu ko gañee fekk na xamuñ tuuta kenn ci kër gi lépp doon ngir bëggul leer ak lu dëgg ci yoon moo tax ñu defe ko noonu ne loolu bu ko neexoon sëñ bi seet ku ko soog mu jox ko waaye comme xam ne ne ñëpp njabootam lañ ak bëggul leer moo tax mu doxali kon loolu daal ci tënk lañ amoon ci liñ ci wax ak luñ ci leer la bu fekkente ne am na yeneen yuñ ci war leer la wala lu fàtte ñu fàtte salaatu llazi fi kulli saarin wa fi safar amaani ala ma'i ma'al aqsa wa sabar